nañ ko ñun tamit yelloon nañ ko am na loo xam te lu bëri affaire yi mënuñu koo dee. te il est temps. intégration au niveau de la fonction publique projet yi nañ. te li la partie visible financement la ñu soxla mun nañoo napp waa yi bu leen neexee mun nañoo sàmm bu leen neexee mun nañoo bay am seen i diplôme yenn gars yi li tax jànguñu parce que benn école dong lañ am ci biir xamante ni c'est un liggéey la ñu bëgg liggéey dafa jot nous sommes des acteurs de développement nous ne sommes pas des déchets na nekk soo demee ci enseignement monsieur le président Omar Badiane gërëm ñoo ngi leen di sant ñoo ngi wax ne ñoo ngi doog a commencé suno yëpp ñi nga xamante ne ay association ñoo la ñoom lañ jiite ñu teew fii ñu wax ne président de benn bi nekk Thiaroye ñu ne moom ba jamono ji fi ñu jàngee ba am diplôme am da nga leen si waa gis institution yëpp war ngeen fa représenté wu ngeen ma fa défendre seen intérêt donc loolu leen bëgg ñu am une un pays uni un pays boo xam ne Sénégal rek day doon doo si xaar amul xaje amul seen un pays inclusif boo xam doo si génne kenn pays boo xam ni ñun ñëpp ñoo ko bokk en tant que ñoom égal dignité droit yëpp benn la encore une fois ñu leen di encouragé di leen félicité di leen xam ne nekk à vos côtés on va appeler aussi ñu gën nekk à vos côtés ah. parce que li nga mën tey aujourd'hui c'est la journée de la libération des non-voyants nuyu monsieur le gouverneur ak euh, assistance bi yëpp di nuyu mboole si ñi nga xamante ni ñoom ñoo gouverneur ñoo ngi lay nuyu euh, te di la jéggalu ci toogaay bi ak euh, niñ la fekkee collectif bi nga xam nak mom moy collectif des aveugles diplômés en chômage ñoo ñëw tay di la déposer mémorandum bi mémorandum bi euh, dañu tok ba sonu def ay pexé ba sonu yek ni ñun ñi kat diplôme yi nga xam dañ ko am ginaaw bañu ñu fañ wara a ginaaw ba nga xamanteni ne ñu bari ci ñun ñu té li tax ñu di ci ñom ndax école bañ waroon a jànge dafa nekk euh, benn te mënta jël ay place yu bari ñoñu ñu bari ci ñom nek ay ndaw euh, nek ci mbedd mi wala nek ci kër yi te yor seeni diplôme wala ñu ñaka yor seeni diplôme bare bare bare bu bëgg dé ñoñu no dajalo won ci benn collectif di bind aka wax aka toog ak nguur aka jema waxtaan lu nek ñu def ko waaye wul bi nga xamé ne lolu amna nak ñu xalaat ni war nañu mëna genn ngir wax ak président la république wax ak askan wi ndax xam nañ président la république yéene jim ni mom la am ci ndaw ñi te ñii ma la wax ay ndaw nekk ci ay ndaw yoo xam ne jàng nañ am nañu ay diplôme ci wàll wépp ay ndaw yoo xam ne li tax amuñu diplôme comme ni ma ko waxee du ci ñoom looloo moo tax ñu ñëw déposé la mémorandum bi mémorandum bi nag tomb yi ci nekk danañu ko liir ci kanam waaye dañuy wax rek ni conseil présidentiel bi nga xamante ne nii moo war a am euh, le le le 22 nga xam ne président da ciy wax ak ndaw ñi dañuy ñaan loolu ndawi silmaxa yi nga xam ni dañoo am diplôme ak te amuñu seen collectif bi daal di cay teew mémorandum bi li ci nekk itam bokk na ci financement bi nga xamante ni financement yi nga xam ne dañ koy dégg fu nekk muy deer ak yi ci aju yëpp nga xam ne nguur a koy jottali di ko joxe ñuy ñaan ñu boole ñu ci projet yi ndax am nañu ay projet déposé nañ ko fu nekk waaye yàlla dogalu ñu mës a am financement mémorandum bi li ci nekk recrutement yooyu ma leen wax nga xam ne am nañ diplôme ci wàll yëpp te ku ko xool gis ko lu leer la mi ngi ci archive état bi ñu boolee leen nag def un recrutement massif pour les aveugles mémorandum bi li ci nekk mooy ñi nga xam ne jot nañ leen jël ak as néew sax ay contrat la ñu am jëluñ leen fonction publique mënuñoo avancé ña nekk INEFJA ak ñi nekk ci hôpitaux yi ak ñi nekk euh, fu mu di don ta ñu jël leen akas neew jëlu leen fonction publique ay contrat lañu am am ñu avancer sen statut social dara baxu ci lool daal entre autres mo nekk ci mémorandum bi ñuy sant bu baax euh, gouverneur diko nuyu di la ñaan nga jottali lañu suñu soxla président de la république masalaam monsieur le gouverneur suite à un constat nous sommes venus déposer notre mémorandum parce que nous avons constaté appelé plusieurs tentatives que nous avons fait au, ministère de la fonction publique, au ministre de l'artisanat et de la transformation du secteur informel et au président de la République qui a donné des instructions à ces ministres cités qui refusent jusqu'à présent de, de suivre les instructions données par le président. Pour une troisième fois, le président a donné des instructions pour qu'enfin les déficients visuels puissent être recrutés au niveau de la fonction publique ou que leur projet soit financé par, le, par l'ADER ou par d'autres euh, directions en charge des, des, microfinances. Jusque-là, des projets n'ont pas été financés. Nous constatons aussi que depuis tout ce moment-là, tout a été fait, mais des instructions n'ont pas été respectées parce que ces ministres refusent de respecter euh, les instructions du, du, du, président de la République Macky Sall il y a des, euh, élèves sortant de l'INEFJA qui sont des standardistes, qui sont des euh, fabricants de brosses et de serpillères, qui sont sortis de l'INEFJA et qui n'arrivent pas à travailler. Parce qu'aujourd'hui, lorsqu'ils financent, lorsqu'ils déposent leur projet au niveau de cette direction en charge de, financer leur projet, ils leur donnent que 200 000 francs. Et que 200 000 francs, ce soit 10, 10 du, du, montant euh, déposé. L'autre problème, c'est qu'aujourd'hui, nous constatons parmi euh, les étudiants ici présents ou des, ou des, des, déficients visuels en sommage, il y a des journalistes, des sociologues, des, des psychologues, et j'en passe. Aujourd'hui, ils ont leur diplôme, mais ils n'arrivent pas à travailler. Des solutions existent, parce qu'aujourd'hui, comme euh, la Tunisie l'a fait, aujourd'hui, il existe des solutions. Quand le président prend un décret et demande à tous les hôpitaux régionaux qui recrutent les, euh, les standardistes ou qui financent les projets euh, des, des, artisans en brosserie et en tissage, cela est possible. Il est possible aussi de financer, de, permettre euh, aux, aux, aux, déficients visuels qui ont, obtenu leur qui ont obtenu leur diplôme de pouvoir travailler dans la fonction publique parce que répondant aux mêmes critères que les personnes valides. L'autre problème euh, que j'aimerais aussi signaler et terminer par ça, c'est qu'aujourd'hui à l'INEFJA, la demande est supérieure à l'offre, monsieur le gouverneur. Aujourd'hui, nous constatons qu'il y a un, je, donne juste un exemple comme ça. Vous avez un enfant valide et un enfant en situation de handicap visuel. Vous permettez à tous vos enfants de pouvoir compétir ou, de les donner le droit à l'éducation. Vous, avez, euh, vous avez pris votre avant, vous l'amenez à l'INEFJA il fait des tests, mais il n'arrive pas à, euh, être pris à l'INEFJA. Il, dépasse l'âge requis pour étudier à l'INEFJA. Ou quelqu'un est déficient visuel tardive, il a eu la déficience visuelle au cours de sa vie et il n'arrive pas à travailler parce qu'il a eu plus de 30 ans. Toutes ces conditions réunies a causé aujourd'hui les d'énormes problèmes que les, euh, jeunes aveugles euh, rencontrent. Nous, nous exigeons que tous ces problèmes soient réglés le plus rapidement possible parce que nous faisons partie de cette, de cette société et nous sommes des citoyens et que nos, droits doivent être respectés comme tout autre Sénégalais parce que nous, le méritons. Je vous remercie. Euh, monsieur le gouverneur, pour les raisons que je suis euh, membre fondateur de l'Union nationale des aveugles du Sénégal, moom moo dugal jàngu silmaxa ci biir Sénégal moom moo tabax institut des jeunes aveugles bi nga xam ni moo nekk Thiès Union nationale des oeuvres du Sénégal bi mu fi dugal jàngale bi en 1971 keroog bi nu toogee à président Léopold Sédar Senghor dañu ko ni ñun am nañu solution pour wàññi yalwaan ci Sénégal ci li jëm ci silmaxa yi mooy maanaam ñu permettre leen ñu jàng am métier am diplôme mën a jëriñoo seen ñàkk objectif fondamental u INEFJA lutter contre la mendicité éradiquer la mendicité kon bu nu demee ba xale yi jang ak jàngu silmaxa ni mu méttee ñëpp xam na méthode Braille ni mu méttee ñu ami brevet ami baccalauréat am diplôme professionnel dem bitim réew am fa ñoo xam inspecteur trésor lañu am fa ñoo sociologue lañu et nous ñëpp ñanga tag bitim réew ndax na bu ñu problème pour accéder à la fonction publique alors yoy nak bi ñu le président de la république lancer son programme national d'insertion socio-économique nga xamné emploi daf ci am salarié comme non salariés xalé yak ngi nañu créer spontanément euh, collectif pour xamné regrouper les jeunes aveugles diplômés pour ñoom tam ñu bind mémorandum tekk ci loxo président de la république wan ko ni ko comme ni ko wolof njaay di waxee mbaam gàtt na waaye ci jur la bokk kon bu nu gubalee fas war nañu gubal mbaam loolu mooy illa mémorandum bi nu teg sa loxo teg ko nag ci loxo yoo xam ni am nañ ci yaakaar nda yow monsieur le gouverneur bi nga ñëwee Thiès ba léegi da nga am une attention toute particulière en direction de la cible handicapée toute catégorie confondue lu ñuy am nga sóoraale leen ci lépp looy xalaat xalaataale leen ci kon te loolu nga mësoon nekkee ci sa parcours ci fi nga jaar yëpp da Diourbel à Dakar à kon kon a xam nañ ni lii nu teg sa loxo tey di nga ko jotale kilifa gi nga ko war a jotale kilifa googu it nag am nañ ci moom yaakaar ndax tegle nañu ñetti ñoo conseil des ministres le président Macky Sall def déclaration wax ni mi ngi ñaan ministre des finance ministre de la santé ministre de l' éducation nationale enseignement supérieur nous devons tout pour améliorer les conditions de vie et d'études des pensionnaires de l'INEFJA. L'emploi fonction publique a commencé en 2021. Il a fait une déclaration au Conseil des ministres. pour nous recruter les personnes handicapées dans le quota du ministère de la Santé et de l'Action sociale. yooyu yëpp nag kon ñu xam nañu moom instruction yi mi ngi koy joxe waaye jafe-jafe bi ça ne s'applique pas soo avec le directeur de la fonction publique mu am ngeen ay diplôme mais amu leen employabilité est-ce que vérifié na loolu boo toogee ak euh, ministère de la santé ni leen kinésithérapeute aveugle ñi ngi ko formé bachelier la mu ne la est-ce que kinésithérapeute aveugle mën na loolu nan nga mën a créer école di fa injecté ay millions par année pour fonctionnement école boobu ba pare ña fay génn ngay douter si seen ay performance y problème alors nous nak léegi mom a ci bu fa démé fa ay nopp yu dégg collectif bi juddu motax marche bi am motax memorandum bi am ñuy ñaan population Thiès ñi nga xam ñëpp société civile bi ñëpp ñom tam nañu pour que le plaidoyer soit fort que le plaidoyer soit entendu plaidoyer bi nak du lenn que yi nga nous dimbale que nous jëriñoo seen ñàq la mendicité ne peut être éradiquée que par des moyens humanistes et réalistes mais do ay ko réglé ay dem ci radio il faut les mettre au travail parce que nous dañu am dignité humaine comme tout le monde monsieur le gouverneur je vous remercie je ngi remercier ñi ñëw jappal ci xalé yépp, société civile partis parti politique nos frères journalistes mais aussi mention spéciale à la police à la sécurité tey handicapé yi xam nañ ni ay citoyens ay part entière lañu parce que ñi ngi am mobilisation la police sans relâche encadré leen ba nu agsi fii ñu ngi leen di ñaanal yàlla di leen gërëm di